Heavy Mess.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 xëppatalaw mbir moomu nag nee ñu nii la demee nee ñu la trente bi weesu booru trois heures du matin la benn groupe bu xale doon jéem a modifier ab pétard naka noonu ci la ñu jëlee pétard bi daal di koy modifier yokk ci insecticide bi loolu amee na ci la pétard bi daal di exploser ci la saxaar si xëree marchand ambulant boobu di wuyoo ci turu dee juuf bi mu nokkee gaz toxique bi ci la daal di perdre équilibre daanu ci suuf ci la amee ñu ñëw doon ko ko jéem a wàllu waaye boobu fekk gémmiñ gi ak bakkan yëpp ñu ngi xelli deret mu nekk ci diggante dund ak dee tubaab nan ko koma naka noonu ci lañ ko yóbboo ci district sanitaire bi nekk ca yëmbal foofa la mujjee ñàkk bakkanam ay way ay way fi mu ne police bu yëmbal ubbi na ci ab lanket ma ne sénégalais yi nag dañoo soob ndax fekk ab pétard boo xam ne defaroo ko tubaab yee ko defar xamoo ci dara nga naan danga koy jéem a soppi yokku ci ba yokku ci musiba bu indi musiba ma ne Sénégal lépp la ñuy bàyyi jagal dañuy bàyyi jagal bay bàyyi jagal wér gi yaram moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Pikine romb na doy waar ab xale bu jigéen lañu fekk ci biir néegu faram mu dal di ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo ci turu ndem moom daal biir néegu faram lañu ko fekk mu faatu ci condition yu doy waar xale bu jigéen boobu faatu ma ne biñ koy faatu fekk ñu ko mu sol benn yére dung comme ni ko yaayam jure woon moo taxit fi mu ne far bi di ab étranger ñu njort ne moo ko xoj ba mu dee teg nañ ko loxo moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax Tuuba nag chauffeur bi fa jàppoon soxnaam dóor ko bañ koy toggal xewer ndax mbaxal mujj nañu ko daan waaw góore waay xam ngeen ne chauffeur boobu lu ko boole woon ak ba mu dóor ko ba muy baga a dee mooy dafa li liggéey ba wàcc ndaw si tegal ko mbaxal noonu lañ lay def de buñ la bëggee provoqué mbaa dama daa ci la jàppee ndaw si dóor ko ba ñu koy toggali xewar laa moo tax ci kanamu tribunal chauffeur bi nangu na lépp lu ñu koy tuumaal nee na ndomba la ko doon dóoree bi mu koy dóor ci la soxna si langaamu ci ay awra am foofu rek la de mu ne mu xool-xool amul pexe ndaw si gën a langaamu gëna a nee na nag ci ko tàmbalee zifla zifla yu metti ngir mu du bàyyi man de bu deful noonu xaw ma nu muy def fi mu ne nag daan nañ ko juróom benn weer yoo xam ne waru koo tëdd mbay waay jigéen ñi bàyyi leen bu leen seen jëkkër yi joxe dépense ngeen toggi mbaxal te it boo leen di xeex ak seen jëkkër yi seet leen fi ngeen di tee foofu rek mu doonoon seen xibaaru bës di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës